ñun liñ paré mom moy paré paré nan madame mi ngi ni tok dend ak man xam nga ne ko dend ak ah sa mbeur xam nga ne moy damay egg rek daan mom damay egg rek daan egg rek daan atu nak lima koy wax bari bëriwut ndax man la sëtëb seigne Mor Fall Diop borom rubine lemi borom bandi fonde na sama mam <laughs> daan jappé gayna yak yoy bo ma ko jàppee noonu laa ko bo ma ko jàppee dama koy daan mako mën upp ko doole waaw lima koy wax dal bët bi suuf na taxaw xaar ma rek man waaw ci fay la instant bi gis nga ñun mom dañoo paré tay mom du yomb ndam rek nak te li ma koy wax fii moom defet du fi teree ne bëgg naa bu demee ca làmb ja mu def lu amul fenn bëgg naa mu roqosal ma ko ay kuur ba mu ne nemm daal di ma ko yëkkatil nag ba ci kaw tegal ma ko ci suuf parce que ndam laa bëgg defet moom xaju fi te ñun duñu defet boo ñu xoolee ni ñuy biriyee sax xam ne ñun jegewuñu sax fu defet di teree ne kon tey du yomb maa lu ma koy wax nag mooy na ànd ak fulla na ànd ak jom na ànd ak fayda instant bi pare na ci côté bu nekk boo yéegee rek lépp li nga entraîné na nga ko ko xëpp bu dara yomb na lépp tàng jiir nag di jaay bi moom du du du heure jooy fermer ronga ñi rek ba ci kanam te xam ne boo yéegee dara du yomb nuyoo supporters yi sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waar ñu waajur dinaa la wax leen mooy xaw ma góoral yàlla xaw ma lu mu doon waaye préparé naa combat bi ak nu ma ko mën a paree naa ko walla walla wala wala wal ba mu feebar juróom-ñaari at maa ko mën maa ko dàq bëree mbapato Sénégal yëpp toj naa ko moom jaaxaluma lii nag laa la wax te balaa nga ko xam nañ egg stade. waaw asalaamaaleykum waaw man maa jabar aatu waaw góor yaa mun ma ko wax dara dama koy bàyyi aatu rek. xam na at moom su doftaloo ba gulal yaa daan ko su ñëwee fii naa ko def lu garaaw lu ñëpp di coow at nag moom moo tax na ma dara dëgg fa yàlla na ma sëba na mooma sañse na mooma dara dara na mooma ko lu ma bëgg suba ba ngoon jot rek jàppale ma ci waaw léegi nag xam nga lu ma lay xamal di boo def def la ba gulal yaa daan la soo ñëwee fii da nga xam ne mën nga ko digaale ah loolu daal àggaguñ ca bañ àgg ca xel yi dem na ci ki nga xamante ni waaw waaw soxna aatu bi waaw waaw xoolal soxna si ndeysaan xoolal soxna aatu bi ndeysaan lii de tey de aatu war naa bëre ba de aatu fëgg na dënd wi waaw su la neexee ndax koy bàkku sa soxna nekk sewet su la neexee nga ne ma ko jàppee ren ni ko maay yaat jëy ki nga xamante ni moom mooy yaa tey aatu yaa góorlu yaa tey bi ndeysaan waaw waaw waa ndeysaan gurul yaa ngi ne jàngal ko la ilaha illallah xool gurul yaa gurul yaa ngi ni wax mais lamb ji tey ma ci jaaxal tey ku ci ñëw soxna nga àndal la ilaha nee naa ko la ilaha illallah xool yaa tàllal na sangoor ko jublu ñeenti xibla ya jëmale ko sow jëmale ko penku jëmale ko biti gànnaar jëmale ko gànnaar waa waaw góoral yaa dugg si noonu yaa ngi noonu laa ilaaha illallaah waaw waaw yaa ngi wax ak supporters yi waaw waaw xoolal aatoo yaa tey waaw waaw waaw waaw góoral yaa dem na waaw góoral yaa ci suuf njug fa njug mu kenn mënu sa gis ma ngay wax ak supporters yo Goroliya dugg si na dugg si bu kenn musta gis wër géew bi ndeysaan daw wër géew bi waaw Goroliya daw na wër géew bi Goroliya ngi daw di wër géew bi waaye li ma ci jaaxal Goroliya de doo ba pare jooy waaw waaw lay lay lay lay lay lay waaw waaw waaw waaw góor yaa dugg si na waaw waaw xoolal góor yaa waaw soxna sa sant na ko saafara sa waaw waaw góor yaa ah mais yaa bi góor yaa daa mel ni ñu saafara yi de waaw waaw góor yaa yuxu na waaw waaw yaa ngi noonu waaw waaw waaw waaw. no wawawu goroli dem no goroli dem no lai lai lau, oh. wa goroli awai, oh wawawu wawawu kai kai wawawu wawawu wow ndeysaan jël jole sengoor go jole na sengoor ndaysan li nak ci sanu lamb la ndeysaan Mbaye Gueye def na lii waaw waaw Mbaye Gueye def na lii Wesseyn Faye bàkk ko bàkkal nañ ko la gërëme ko sa ndey ba ñu ko dindi la waaw waaw ndeju liggéey solo gàcce gàllama góor yaa waay waaw waaw ñaar ñi ne ku ci nekk sa jëkkër day tey waaye yow mi nga xamante ni yaay jabar góorlu yaa tey jii nooy ne sa tey nooy ne góorlu yaa tey. waaw nee naa la tey bis du yomb tey sama mbër dina ko dóor duma ko daan ko toog si kawam tey victoire bu leer laaj la am tey. waaw loolu leer na waaye yow tamit looy tontu mu loo koy tontu parce que bu jàppee sa mbër mi nga xamante ni yaay soxna aatu nee dina ko duma ba muy a loo koy tontu. tey moom victoire rek mu ci bëggoon ñu yóbbu wax ju bari yaa ko waaw waaw Gora Lion pare na Atou pare na laa ilaaha illallaah Gora Lion pare na Atou pare na waaw waaw gàcce ngalaama Gora Lion waaye gàcce ngalaama Atou laa ilaaha illallaah xoolal Atou Atou gi ci ay xar fa xu fa mi mujj waaw gàtt na nen Atou yor na nen waaw waaw ndeysaan yor na leen ci loxoom. waaw waaw. yaa ngi jóg. waaw waaw. yaa ngi tuus. góorlu yaa ngi tuus. waaw waaw. laa ilaaha illallaah. waaw waaw. waaw baa ngi wax ak ñoom baa ngi wax ak ñoom baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi leen di xool mbokk yee ñu àndaloon yëpp toog nanu soxna ya toog nanu sëriñ ya génn mu des yan arbitre bi rek ngay dégg ak rapporteur yi kon bii combat xam nga ni ci diggante aatu nga xamante ni mooy la grand champion aatu nag moo ngeen moo ngeen mën a ki nga xamante ni waaw aatu toj na nen atu toj nenen Nokia eh. Gorelia kabar nako ko ñetti wow, waaw waaw seen ñaari jabar yaa ngi noonu ndeysaan arbitre suuf la ñoo lewato ñoo lewato ñoo lewato xoolal ku ci nekk sa soxna mëntul toog lay lay la laaw waaw waaw fii la gis mbër mi eh Gorelia dàq atu atu Atou Gorel yaa dàq na ko ato arrière na waaw waaw ah! la ilaha illallah yaa dàq na ko pare bàkku la ilaha illallah waaw waa ngi waaw arbitre bi nee ko bul arrière at waaw waaw waaw waaw arbitre suuf la yaa kàppar na ko encore ñetti juutu na ko waaw waaw ato maa la wax loolu ay digtal la waaw waaw la ilaha illallah fu jëm optation jàppante nañu gurul yaa ngay dóor jàppante nañu ato gurul yaa fu ñu jëm ato gurul yaa jàppante nañu mbaxana nu fete mbaxanam gurul yaa wadd na ar xool gurul yaa ngi dóor ba tey ato jàpp na ko waaw waaw la ilaha illallah waaw góor waay waay waay ato dàq na ko waa waa arbitre nag arbitre war na jël ay sanction am waaw waaw arbitre arbitre waaw arbitre nag war na jël arbitre nee na am nga deux avertissement waa waa aja arbitre su ne na waaw waaw daf na ñaari avertissement mais àtt na ñu xool fi ñu mujjee laa laay la laa bu dee daa jaaxle nu laay laay la laa machine yi la ñu ñi dafa mel ne ah arbitre li ma gis dafa mel ni njaaxle nuru li gis li gis waaw oh arbitre nee na ma signé la non non ay lu xew lu xew lu xew lu xew kaay kaay kaay kaay atu kaay atu kaay atu atu atu kaay atu dañoo gis ngeen bëre mu dàq la ñaari yoon nga kau mais làmb ji fi mu mujj arbitre dafa mel ne làmb dafa njaax atu la man maa daan dama ko roof galgal jabaxal ko sama entraîneur na ma defal ñaari pas ci ginnaaw ma def ñaari pas ci ginnaaw ñëwaat ma daan ko dama def recours. waaw boo xamee ni la yoon may rek ñu bind. waaw waaw waaye nag eh yow mi nga xamante ni yaay soxna Aatu noo gisee combat bi noo gisee combat bi soxna Aatu. wax dëgg fa yàlla arbitre bi moom dafa sàcc parce que ñu ko def kat at mu doon jëlu jël mi daal ko jël bu leen daan mu naan machine du yoon. waaw waaw. wa Gora ya yow no gisee bis bi nga ni mako dal albi arbitre dafa ne prip suuf ne ma daw kabar ñetti kabar ndaw attaqué ko bi mako ko daanee mu daw génn saxu yi ñu del si bi ndel ci waté ma kabar ñaari kabar mu daw génn saxu yi bi ñewaté abar gila gila ko but dama ko tibb ma mot ko mu daanu wa me jibi wa soxna si dafa melni sa way bëri na ba si ma gis mbaxanaa mi waddu yow mi nga xamanteni yaay soxna Gora ya nee dole du fen